fayul del fay. ah waaw. bul bul xaar remise bi yow. dégg nga dootoo bul xaar remise bi. bul xaar remise bi. bu tàllalee dóor ak yow. mel ni ko nga moom rek. suuf ah am ah ñaar agressé ko agressé ko. Hmm. fayul fayul koral dem fayul. waaw waaw fayul waaw waaw. non non kay kay. non non kay kay kay dafa muy liggéey foofu. correct correct wàcc wàcc wàcc wàcc rek wàcc wàcc correct correct gar gar da génn rek mu fekk la fa di da ngay mu dugal biir taalal ko si kanam gi mu sase ko waaw leen jege jege xëtt ndigal attaque attaque attaque attaque ah. xam nga lañ nam xam nga lañ nam. fii di caméra nii. Mara Ndiaye waaye dama rek eh, yow. Eh, eh, sa genou yi téye ko ci kaw sa genou yi bala ka ko ci kaw. bu mu laal oh, suuf genou yi bala ka ko ci kaw. en même temps boo jugee si loxo yi beneen loxo da koy sensé. xoolal xoolal moom ni koy defee. bu tëjee sikki da ngay sikki tout droit Let's go champ, let's go. jugal jugal jugal jugal fii la fii la fii la fii la fii am na loo def ni fii la fii baax na demal waaw ah, dem loolu gaay fii la Legal. dafa am loo ko yoroon dama mu jeex ba fajar xam nga voilà ca xeex bala babaw nga la di wax fadel be xolo xolo xolo kilo ben taw wa xarif le dafa mag rek waaye ma leen ah suba wax di leen bëggee bu baax a baax di am contentement ak mbir di dialogue yéen chaque jour ah internautes yi national international comme ni ñu koy defee chaque fois bu làmb amee wala événement dañu daal topp événement bi ba mu jeex tey nag ñu ngi fii écurie bu mag fas yéene dalal ndaanaan bu mag ah xale bi nga xam te ne kër ba mu bëree loxo dafa dal gémmiñ ñu koy nuyu moom rakku Lac Rose Ndoye nuyu naa la. waaw soxna maa ngi lay fay maa ngi lay nuyu di nuyu àdduna yëpp di ziar ñëpp di sant sama yaay ak sama papa bu baax a baax mm. waaw di nuyu suñu kër si ñi nga xamante ni combat bi dañ ciy sonn ku ci mel ni père Kati sama ménagère père Ibrahima Mbaye Socé Serigne jaay deux général xam nga ñoom jéggi siraat gaa yëpp maa leen di ziar ak booy gaa yi may àndal ci entraînement yëpp wax dëgg yàlla sonn nañ ci combat bi trop waaw maa ngi leen di remercier bu baax di leen wax gis naa taxawaay bi gis naa jàpp bi mhm. waaw kontaan naa trop Mm-hmm. ayca nuyoo baa ngi noonu nag combat bi ma leen di fàttali ba léegi jam production moo ko taxawal ah jamaïcain promoteur bu nga xam ne mooy jaabajale Sénégal ak Gambia borom parfum yu neex yi kenn du yow balaa may dugg moom ci combat bu mu jëm rek ñu daal jàll tuuti ci ginnaaw sa carrière làmb lan ban combat moo la ci a marqué. sama carrière làmb ma gën a marqué. Mm-hmm. non amago amago amaguma ko Jackson. non loolu jàngat la quoi. Mm-hmm. loolu jàngat la. waaw yàlla daf ma cee won yoon ndax xëy na maa ngi doon bëgg a dugg di naagu. Mhm. yàlla won ma waaw. ci nag bu ñu jàllee ci combat boobu combat boobu nekkoon lu Sénégal ñëpp baay woon seen xel ndax li nga indi woon ci jour combat ba mu demee noonu nga am beneen combat dugg Lamsaar. Mhm. nga bëree ko ni nga ko bëree. Mhm. ba nga jël amee ndam bi lan nga yëg. waaw loolu dama ko sant yàlla suñu borom bu baax parce que moom moo ma ko may. waaw mënoon na ko may sama noonu mais xañ ko ko jox ma ko loolu lépp mbiru yàlla la suñu borom. waaw maa ngi doon xaaraat combat feneen far yàlla def ma amaat combat foofu mhm. waaw mais loolu yëpp sant la di ñaan yàlla yàlla may ma ci ndam mhm. waaw man moom combat comme combat yëpp ni may préparé combat rek laay préparé combat yëpp mhm. muy taqee keneen ak keneen laa ci yemale waaw man ni may préparé combat rek laay préparation bi nga daan Abou Ndiassé ñu ne voilà dañuy xool fan lay génne nga duggaat bi Ukraine de Abou Ndiassé bëri ki nga xam ne mooy ànd ak Abou Ndiassé ko taqee la moo war a choix waaw loolu loolu du dara tombe la rek waaw tombe la rek yàlla def sama adversaire nekk foofu rek ñu war a bëri rek man moom mu nekk champion quoi nekk champion nekk ndaanaan nekk bëreekat nekk kat waaw te man tamit ma xam ni gaa yi xam ne bu ñu bëree man ak moom dina neex mais du ay affaire de dugg fii ak yooyu waxoon naa ko làmb ju neex la rek waaw comme yeneen làmb yi rek xam nga risque yi nga ciy fekk revanche ngay bëri moom mën naa ne sorte revanche ngay ne nii sax risque lay bëre waaw làmb yëpp làmb risque la waaw mais dañuy sant rek parce que ñi ngi si lu ñu war a nekk boo mhm. nekkee ci li nga war a nekk doo ragal mhm. waaw ñi ngi si lu ñu war a nekk ñi ngi suñu entraînement bu baax a baax a baax mhm. waaw di préparer yeneen adversaire yu dul sax taqe ñun làmb lañ moo lañ moo ñu yëkkati waaye ndox du jéggi pax ngay bëre mbër buñ ne fu mën a xeex préparation ndox nga koy waajale xeex bu saf sàpp rek hmm? wàcc xeex wàcc lépp waaw da ngay xeexaat ah man kay ko xam Pape Ndoye moom xam ne moom wax dëgg lamp yi tàq. Mhm. waaw ubbil naa la buntu yaa ngi jàkkaarloo caméra bi Mansour dama bëgg nga jox ma regard ki nga xamante ni mooy Pape Ndoye juge lan nga indi sa adversaire. sama adversaire xool ko xool ko xool ko. li ma ko indil moom xam na ko. Mhm. ñi muy àndal ko. waaw parce que ku xam Pape Ndoye rek xam ne bu arbitre sifflé rek man damay dem. damay xeex si incha allah rabi te moom na ma fa taxaw xaar ma fa damay xeex see moom. yow prib daal dib nga bëgg. waaw prib dib incha allah bu boobu sax nekk di bëri ay làmb yàgg. <laughs> taxaw leen foog ñu xaw a relanté affaire bi premier entraînement lañ ko fekk mu entraîné ba pare takku suuf ah ma gis magam mi te ko lu méttee métti nga nga ne bu arbitre bu arbitre sifflé lan ngay def. incha allahu rabbi sa tag sa koñ sa gañ. taqe maa ngi ci kawam bu arbitre sifflé. Hmm? moom na xam loolu. doo ko may mu xalaat dara pour ma yombalal ko ko. bu dee day entraîné na ci boolewaale loolu. war bi ne péréb maa ngi ci kawam te dama dama koy damay xeex seeg moom est-ce que pare nga luy est-ce que du ay <laughs> ndax sërëx la waaw da ngay dem nga teg samay combat nga xool ñi ma ko waxoon mhm. ndax ndax sërëx la voilà mhm. boo demee nga xool samay combat yi mhm. la demee waaw dama noonu lay demee chaque jour incha allah. ngay préparé làmb mun nañu ne làmb ji ci des fu mu ne nii motul sax di waaj comme ni doon waaj rek ànd ak suñuy grand ànd ak suñuy mag waaw ànd ak suñuy grand ku mel ni Grideur Lac Rose sama mag mm-hmm. général Xaadim Abo Fiw mm-hmm. waa écurie Fass ñoom Dijje Serigne Ndiaye deux gaa yëpp barke alxuraan di si jàpp di ci jàpp bu baax mm-hmm. waaw xam nga ñoom dañ leen di sant bu baax a baax a baax ñun entrenement rek lañ yaakaar ci làmb tërën rek war na yàlla man ñett laay def dëgg yàlla matin laay def de <laughs> amee ah, dara dañoo bëgg am dara ci làmb rek du combat yi sax moo tax ñuy def loolu mais ñun dañoo nekk ay ndaw xam nga bëgg a su ñuy waajur bëgg a ñeneen ak ñeneen waaw bëgg li yu mag yi nekk ci kaw am ñu bëgg koo am te ñoo ñoon dara may leen loolu lu entraîné waaw ndax bañ ciy toll dañuy entraîné bu baax waaw moo tax ñun tamit man gi amul secret secret bi entraînement rek la ah moo tax ah, ah, ah. lan am na ci la bokk non moom wala jëloo ko jëloo ko. non man wax dëgg yàlla man moom entraînement. waaw su sama mag ñëwee ni ma am lii ma jël man aw ma dara lu may defal lu may lu may kii entraînement daal lañ ma sant te laa leen di defal incha allah. est ce que mës nga bëre ba jàpp na yow la atteindre mystiquement. non man yàlla man moom su ma su ma bëre ba jàpp ni. jàpp mës ngaa bëri ko nga xam ne yow mi da nga ko jàpp mystiquement. non non man dama lay daan avec la manière. Mhm. contact laa lay indil ak xeex bu saf sàpp. Mhm. waaw jàpp la daan la. Mhm. man sama lépp ci contact laa ko teg man damay contact chaque jour. nice. nice ayca <laughs> ñu ñëw ci relation bi nga xamante ne nii am na ko ak mbëru mbër yi ngeen ñu ñoo nekk Fass seen relation ngeen am. waaw ñu nekk samay mag ñuy ànd di entraîner. Mhm. ñu yéene ma jàmm ak salaam. Mhm. waaw mu nekk lu rafet loo xamante ne nii sama xol sedd ci trop. Mhm. waaw ma leen di ñaanal jàmm di leen ñaanal ñi ci am combat yàlla may leen ndam. ñi ci amul combat yàlla may leen combat ñu am combat am ndam. waaw di ñaanal booy yi nekk ci équipe bi yëpp yàlla may leen ay combat waaw parce que entraînement dafa métti loolu laa leen di ñaanal parce que taxawaay bi rafet na trop fi na ni wàccaay combat mën naa jege na ñu mën nañ xaar Pape Ndoye woote open press wala waaw incha waaw rek incha après waaw kañ ci biir semaine bi mhm, jeudi incha allah jeudi jeudi incha allah ak ñaari mhm. woo fan waaw di woo fan di woo waa Grand Dakar waa ñaari NGB bi yëpp mhm. waaw waa yëmbal asegna bi mhm. ñoom ñëpp mhm. waa kafe ga waa mhm. tool ba xam nga gaa yëpp daal waa yëmbal station ba borom moto yi waaw ak sama turati nuñ koy waxee mm, fan bi nekk asegna ñoom ñëpp maa ngi leen di woo ci bi di leen jaajëfal bu baax di wax gis naa seen taxawaay rafet na waaw di sant groupe sopp Seydina Mohamed bi sama groupe yaay bi xamante ne chaque jour ñu ngi may ñaanal bu baax a baax gis naa ñaan yi gis naa lépp di sant ñëpp ñi nga xamante ne dañ may jàppale ci combat bi. waaw bu santagum sama émission bi jeexagul. ah bu santagum. waaw ah, ah. Lac Rose fu mu toll fu mu nekk. ah Lac Rose mi ngi ci ay entraînement am. Mhm. mi ngi ci ay entraînement mi ngi entraîné chaque jour ñooy ànd man moom Gris de Gaye ñooy ànd entraînement fajar. Mhm. Mhm. ayca ci noonu nag du ñu waxtaan ak mbër buy bëree si lii amoon dimanche duñ ci waxtaan mën naa sa dimanche yi yëpp mooy am ñu gis làmb yu bari léegi jeexatul ci jël waaye avertissement lay jeexee en tant que mbër. lan nga gis fi loolu. waaw loolu moom xëy na ci làmb moom noonu la demee rek wax dëgg yàlla ñett moo am ci làmb daan daanu maxinil ak sans verdict yooyu moo fi am kon yooyu yëpp mën nañ koy sóor ci làmb parce que ci la bokk tamit quoi waaw ku xam am na yenn mbër yoo xamante ne ku leen xam ci bëre xam ni am na nu bari noo xamante ni du seen bëre mais bu ñëwee indi noonu rek xëy na xam nga rek jour boobu noonu lay mën a demee du seen jour làmb moo demee noonu quoi mhm. waaw nekkul chaque jour nga ciy nekk di ci nekk mhm. waaw da ngay la ciy nekkal mhm. waaw kii moom. ayca li nga xam te ne dama koy wax toujours ci émission bi te du ma ci tàyyi ñi gis mbër yi du ma ne sa mbër yi waaye supporters yi bu seen mbër daanee ñu yàq bu seen mbër daanoo ñu yàq en tant que mbër na nga gisee loolu. moom dama koy ñaawlu bu baax wax dëgg yàlla dama koy ñaawlu parce que li yàq ñun ñoo ko moom. Mhm. waaw wala li yàq tey jii bu fekkee da mhm. mhm. jàppale sa mbër quoi. ko war a dooleel. muy jéem a am avancement jël reliquat am am lu def. waaw mais su fekkee tey dangay ngay bëre ba pare sa reliquat doo jot mhm. ndax say supporters ñoo ko yàq loolu moom man rafetlu mu ko quoi mhm. ñi koy def nañ ko bàyyi mhm. waaw tey jii boo nekkoon bi CNG am loo fa a yokk nga fay wàññi lan lay ah. <laughs> nga am nga ay bëgg-bëgg nga ah. neexu la bëgg nga mu dañ <laughs> lan la ah CNG gars yi daal CNG daal mu ngi noonu rek waaw. Pape Ndoye waxuma la mu ngi noonu ñëpp xam nañ ne mu ngi noonu yow boo fa nekkoon tey jii. nee la ah. dara wala yokkal dara lan lay doon. CNG su ma fa nekkoon. en tant que mbër. man hmm. lu may yokk lu may wàññi. Mhm. ah xanaa di leen wax rek ñun moom ay ndaw lañ rek. Mhm. waaw ay ndaw lañ nekk ci làmb. Mhm. yaakaar ci làmb pour teral suñuy waajur. a di wax ni léeg-léeg yëfu jeunesse mënul ñàkk quoi. waaw comme léeg-léeg gis mbër def loo xamante ni sax day dem ba ñibbi rëcc ko. nga xam ne loolu du habitude am lu ñu gis damay dugg ci lu simple bi am na ko fi nekk foog mu xaw ko brosal tudd Mansour eh, lu simple ñu gis si ay bagarre des fois gis si ay xeex yow en tant que mbër nga gisee loolu. waaw c'est que nag léeg-léeg gars dañuy toon ci biir làmb ji quoi parce que tamit bëre mën nga bëre nit ki. Mm-hmm. mais ñëw di ko sotti gàllaaj loolu bokku ci. Mm-hmm. ñëw tiim nit ki di ko saaga loolu tamit bokku ci. Mm-hmm. waaw bokkul ci respect quoi mm-hmm. boo respecté sa waajur sax loolu waroo koo def mm-hmm. waaw parce que tamit loolu koo ko def tamit day réagir de mm-hmm. waaw mbëri nañ bàyyi loolu nañ bàyyi di ñëw ci mbër boo boo ñemewul nit ki bul bëreek moom waaw bul bëreek moom wala nga seet neneen noo def mais ñëw jël sa biteel sotti ko nit loolu tamit nit ki foog mu jéem a am nu mu réagir waaw ayca ñi yi nga xam ne nii CNG daal na koy dogal waaye nag Bira Sène ñu koy ñaan rek mu xaw a wàññi sanction yi tuuti tuuti ah? waaw dañ ko dañ loolu loolu moom dañ ko ci dañ ko ciy ñaan rek waaw di ko wax. affaire mbër rawaañ sang mbër mu jégal gars yi mu jégal ñëpp te yàlla tax waaw bat sëñ Touba mu xam ne ay ndaw lañ rek mm-hmm. waaw ñëpp ay ndaw lañ rek dañuy wut rek lu ñu yóbbu kër ga mm-hmm. ak lu ñu lu ñu lu ñu mooy loolu mm-hmm. waaw ay su ñi ay satam lañ ñi ay jarbaatam lañ ñi ay raxam lañ waaw ñi ay doomam lañ ñu ngi leen di jaajëfal ñoom tamit bu baax a baax leen nuyu waaw ay ca temps bi xaw nañoo xoj bu baax a baax lan ngay ban message ngay lancé balaa ngay tàggatoo waaw message may di ñaan ci réew mi jàmm di ñaanal ñëpp jàmm waaw di ñaanal ñëpp yal na leen yàlla defal jàmm di ñaanal ñi nga xamante ni fekke woon nañ année bi daaw te fekke wuñ ko yàlla woyofal suuf seen kaw di ñaanal waajur yi nelaw ñëpp waaw di ñaanal suñu waajur yi dund yàlla bàyyi leen fi waaw ñu fekkee suñu njëriñ bu baax a baax parce que bu ñuy takk suuf wala ñuy mel ne nit ñi ñoom ñoo tax waaw ñu ngi leen di ñaanal yàlla bàyyi leen suñu kanam daal ba ñu mbébéb si ñoom yàlla mottalil ñu ko waaw loolu li ma koy ko ñaanal jàmm xool sa caméra wala waaw taxe maa ngi lay ñaanal wér ak jàmm waaw ba yàlla indi la ci làmb ja ak jàmm ak salaam ma daan la jël bu rëy di nga xeex nag di nga xeex de incha allah rabbi je tag sa koñ asa gañ daw maa la mosol loolu supporter yi supporter leen wax ñu teel dem stade waaw ni faax toog NGB fee bi yëmbal asegna bi ñëpp ñëw waa Malika waa Medina mhm. waa yi sama dëkku papa sama dëkku yaay waa Laayeen waa baa Touba ma kenn ñëpp maa ngi leen di woo ci combat bi di wax ni làmb dafa metti am na ñoo xam ne dañu nekk suñu ginnaaw di ñu jàppale. waaw ku ci mel ni sama grand aada borom Milan daf may jàppale bu baax wax dëgg yàlla dëkk euh, cité gàddaay aseg naa jàppale bu baax a baax. sama mama Nday Sali pam mama Fall xëyta sekk madame la maire daf siy jàpp bu baax maa ngi koy woo ci combat bi di woo gaa yëpp ñoom momoo Africa PIP MG. xam nga maître ba l'avocat de la jeunesse. Mm-hmm. jéggi siraat sama raq yi ñi may àndal ñëpp ma kenn. Mm-hmm. maa ngi woo ñëpp si combat mm-hmm. waaw ku ma limul rek damaa juum. waaw di ñaan yàlla yàlla may ma ndam la huit. ci kaw taqe yàlla yàlla na ma yàlla may ndam ci kawam. loolu laay ñaan. man man boo may xool naan yàlla may ndam da nga ndax tax taq suuf tuuti bu ko defee ma xool fee. <laughs> taqe dama di di nga xeex di nga bëre laa la wax barki sama maam. waaye day reedaan yow tëral ju la waat léegi nii waaw ok dina baax. sama maam laa nag. fan si waaw di wax mooy maa ngi gis naa préparation bi gis naa ni ñuy waajal làmb ji. kontaan ñun amuñu ay fans ay mag lañ am ak ay raq ak lañ ñun. waaw ñooñu suñu suñuy fans ñun ak ñoom benn lañ. waaw di wax ñu teel a dem stade. teel a préparé. ñëw solo ba rafet laal parfum laal ay kaasu café yu baax. ñëw toog ci kaw. ñu jàpp taxee def ni ñu doon def rek. Mm. waaw. <laughs> après mu jeex foofu. ma ci wax ci gudd. ayca mu ngi noonu Pape Ndoye la woon dañ koy bëggee bu baax a baax di leen jox rendez-vous yàgg dara ci biir semaine bi ngi dem ci li nga xamante ne mooy open press ama taxe dégg nga sa adversaire wax. yaa ko dégg de Pape li nga ko wax rek laa a jottali nee na di nga xeex di nga bëri soo bëree mu daan la soo xeexee mu dëmar moo ko wax nay leer. ayca noonu laay def nag du sant di te du sant sama équipe bi ah. Mansour Fall damay bëgg ci yow baax a baax mañ jinne caméraman yi kenn du yow. Euh. <laughs> général Baal jàmbur kii kenn du moom ci mim réew xale am na jom nangu naa liggéey ah. du entraîné wul Baal jàmbur Oumou Laye Laye Mokhtar damay bëgg ci yow baax a baax Pape Thialis Faye am nañ combat nag bu rëy Mourou Mané mbaru Leewtoo ak général bu Faas maa bëgg nga jàpp ci. Hmm? ñu bëre bëre <laughs> ay di nuyu ñëpp ah, national international li olof Ndiaye naan boo nekkee ci tolof tolof ci ngay gis ñi sa say mbokk waaye boo juumee ci ngay gis ñi la bëgg gis ñi la bañ ndax yaakaar naa am na lu fi xewoon dégg naa wax jeeg woote geeg yépp damay ni bëgge benn bu ma bëgg bëgg naa leen ko fukk 100 pour cent assurance kenn du yow loob sur dundal ba say may di baawaan noonu la ñuy def beneen événement beneen mbër beneen waxtaan beneen koñ